Hmm. le prédécesseur de Antoine Félix Abdoulaye Diom. veille ouverture campagne électorale pour 2019 y a na ma qui woon hmm. ci ministre de l'intérieur bi fi nekkoon Aly et c'est notre droit le plus absolu Nous duñu état duñu dara mais si euh, kii société civile la la hmm. population civile nous nga xam fantaisie ci diggante kàngamu politique yi musiba am ci ñun baadoole yi ñoo ciy loru kon am nañu droit dem sàkku ci état mu yokk kaaraange population yi alors bi ma Aly Ngouille dalale ma ne ko suma tànk moo di campagne baa ngi nii doog a démarré en février 2019 mm-hmm. te déjà les marrons de feu de l'APR jàmmaarloo nañu avec la sécurité du candidat des Moustachidines le parti pur mu di Issa Sall fii ci euh, euh, Tambacounda bakken rot na ci et y a plus d'une dizaine de blessés waaw ma ne ko nag te fi mu nekk nii campagne baa ngi doog a démarré te wala ko wax ne lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ca ngoro la dañu ko faalewul woon ma ne ko kon nag lii xeeñ baaxul qu'est-ce que ça va etre bu fekkee campagne bi dem nañ ba sori ci biir ma ne ko dama la doon seet si indi document bi am nga ko sax waye fàttali rek la règle? di ko ne est jox ko décret bi fi Léopold Sédar Senghor premier président de la République bàyyi mu di la loi 78 40 hum. du 16 juillet 1978 bi interdire formellement toute forme de police privée ngir la puissance publique ni ko constitution bi jagleel ñu bàyyi Il ñom hum. mu di les forces de police les forces de gendarmerie l'armée les agents des des et l'administration pénitentiaire mhm. alors je pense que kon nag loolu dal la ñu sakku ci yow nga candidat ndax dérogation bi loi 78 40 qui interdit bi mu interdire toute forme de police privée Nous bu féké da nga am des biens privés à préserver wala nga assuré assurer la sécurité de personnes mhm. yo xamné euh, dañuy yëngatu sur le champ public yoon maye na dérogation à condition nga sakko ci état mané ko candidat yépp nak kenn ci ñom samunté ak bref ça a été un débat très enrichissant ma di di remercier encore une fois le ministre de l'intérieur de l'époque Ali Ngui Ndiaye ci esprit d'ouverture bañu paré ba di ko di dem mu ne ma déet bul dem dama la bëgg a woon ne lii ñu waxtaane maak yow dama kay commencer jëfé légui te wax dëgg yàlla il n'était pas obligé de le faire ci sama kanam la jël téléphone am woo le de campagne du candidat Madické Niang woo le de campagne du candidat Ousmane Sonko. Mhm. Idrissa Seck Issa Sall Macky Sall cinq candidats yi ne leen recevoir naa fii Jamra ñu ngi ñu doon yeesalaat loo xam ne ñun xam nañ ko waaye nag dëkk bi ñun ñëpp a ko bokk dañ ko war a waxtaane muy la loi 78 40. du 6 juillet 1978 bi tere affaire milice te yéen ñëpp am ngeen milice kon maa ngi leen di yëgal ne ministre de l'intérieur jël na matuwaay ngir yéen candidat yi ngeen dakkal affaire milice yi ànd ak yéen ci campagne milice mooy li ñuy wax nervi par exemple ay nervi milice privée wala nervi mhm. mooy koo xam ne yow doo alkaati doo gendarme amuloo benn sañ-sañ ci vous avez nga violence alors mu li campagne bi une milice privée wala bokk nervi continuer di mais à condition nañu ko simi sen tenue paramilitaire parce que c'est interdit à condition nañu wër parce que c'est interdit Mon élève, en essence man l'intérieur warna am séance de travail tay avec les autorités de la gendarmerie pour que candidat bu ne ñu détacher la un corps d'élite de 20 gendarmes ñu di la AR gratuitement ba campagne bi jeex. lolu ali Ngouille Ndiaye liggéeyoon nako fi. yaa imam day wone ne rek lolu bokk na ci taxaway bo xamni aussi euh, Jamra defon nako ko moo taxoon ministre bi. voilà daal di jël yooyu mais malheureusement. Mhm. ba fa ministre bobu joggé mu xawa melni lolu dafa xawa nax saay. Mhm. ndax mbirum milice mbirum nervi jolliwaat na. te dafa jolli façon bu ñaaw dañ ci boole di tooñ boole ci nekk ci réseaux sociaux yi di saaga ay ndey man mën naa comprendre congaan da ànduma ak moom ci ci wàllu politique ñu war di def débat d'idées loolu fii lañ ko fekk mais man awma benn droit singali congaan di ko xas di xawi suturaam ndax lan ndax congaan dafa nekk ci loo xam ne man newuma ca awma droit naan congaan lii ma nekk man ku ci nekkul newoo ci dara loolu la milice yi di def ba dafa am dérive yu commencé nag jëmma jooju ñu naan dof ndey illustré na ko yamul ci daggi saaga ndey jaasi la yor ab semmiñ am na ay victimes déjà ñu mu caw ñu mu jam il y ci ko armes sax ci dafa arme à feu d'or ci kaw ay bal des coups de sommation fima wax yéen nak saisir le ministre de l'intérieur directement mu di Antoine Félix Diome ci affaireu kaw jëmma jooju saisir le directeur général de la police nationale Seydou Bokar Yàgg saisir le commissaire central de Dakar mu di Drame. saisir le commissaire de la sûreté urbaine Mudi di dégg nga euh, euh, Bara Sankhare ñoom ñëpp yónnee naa leen photo yi vidéo yi ma ne leen lii boo ko dakkalul ñun Jamra am nañ ay information yu yu raglu ñoo xam ne ñu ngi fas yéene des brigades d'autodéfense te loolu mbirum fayuntoo lay jur su boobaa dinañ xam fu muy tàmbali kenn du xam fu muy mujj parce que contentieux préélectoral bi amoon en Côte d'Ivoire 2010 2011 ni la tàmbale woon ñi di ko sàggane parce que la mouvance présidentielle bu Laurent Gbagbo dañu avons une milice tribale pour nous les escadrons de la mort nous avons de sàggane muy mag, di mag, di mag, fu nous mujjee jàmmaarloo yu tar Abidjan Abobo Treichville 3248 morts je répète 3248 morts de 2010 2011 T'es moitié c'est des assassinats politiques kon affaire u nagn ko baye ak ñiko mom police ko mom gendarmerie ko mom euh armée ko mom nagn ko baye ak ñooñu candidat yi nak libre nañu out ay andando mais amuñu droit di len jox des tenues militaires ou paramilitaires amuñu droit di len jox ay gannaay kon nak maa ngi profité ci antenne Senbuzz ak Sénégal c'est lancé waat appel au nouveau ministre de l'intérieur qui est pourtant très vigilant waaye am na élément yu ma ko yónnee par WhatsApp jot na ko na ci bàyyi xel